c'est la référence. ajuma juróom ñetti fan ci weer ak mars atum 2024 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen ma jukkil leen la ca gën a fës gannaaw ay jiixi jaaxa léegi nag leer na nañ ñaar fukki fan ak ñeent ci weer ak mars gii ñu dëgmal sénégalais yi daañu mën a dem nag ci mbañ gàcce yi ngir itam daal di tabb ma njiitum réew gannaaw ba nga xamee ne conseil constitutionnel dëggal na dat ba. Euh, campagne bi kon euh, dina door maanaam daal euh, samedi bu zéro heure jotee mu yemboog dimanche nar a jeex itam nag ajuma ñaar fukki fan ak ñaar ci weer ak mars bu zéro heure itam jotee lu ni mel des na ca dikk ci biir xibaar yi bés ni tey ji nag di 8 mars mooy nag bés ba ñu jagleel jigéen ñi di leen ca màggal ci àddina daj wax ngeen képp bëccëg boobee nag saa bu dellu see jigéen ñi xeex ak ak yelleefu soxna yi ñoom nag dañu cay amal rek la ñu tuddee ab taxaw seetlu loolu waaye nag la ñu gis kon moo di ba jamono jile euh, violence yeeg coono gi moom euh, des na lu ni mel daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ak Alioune euh, Badara Diop jigéenu Sénégal yàgg nañoo dooni jàmbaar laata indépendance dalee ko ca Caroline Faye ak tey jile jigéen ñi nag teg nañu ay jéego yu bare bari yëngatu yi itam nag ci wàllum politique ponk bu ni mel des na ko yër ak ndey faatu Cissé jëm ci wàllum ndimbalante ak jàppalante rawatina nag ci waxtu wi dëgmal koor gi ah, lu ni mel itam nag tax na ONG Qatar Charity ak ah, it nag ci glangoom ak ONG bi la di Alfitiyanu ah, ñoom nag ña nga doon joxe ay ndimbal lu tolloo ko juróom-benn téeméer ci ay kit alimentaire la ñu doon séddale lu ni mel itam des na ko yaatal ci biir xibaar yi bu li lépp yembee dañ ca teg xabaaru bi ci réew tàggat yaram ak li ci yéenekaay yi El Hadji Libaas Mbay ci machine bi dal leen ak jàmm ci xibaar yi. journal Ngoné Ndiaye Reine Euh, ci kàddu gi euh, mbokk yi dal leen ak jàmm beneen yoon ci bile jotaayu xibaar euh, bés ni ki tey jilee nag mooy bés ba ñu jagleel soxna yi di leen ca màggal nag ci àddina daj weex ngeel képp bés boobee nag Alfayda buntoo na ca ngir itam daal di gestu soxna yi nga xamee ne ña ngay jànkoonte ki coono waaye tamit nag soxna ya nga xamee ne ñooy mujjee tëdd terewul ne njël la ñuy jóg Cheikh Tidiane Diagne reportage. lu mu nelaw ba yandoor Sitor Yandoor bu fajar gi jotee ba ganaar yi sàpp ay nelawam jeex na. ñun jaay ganaar rek la def ay 5 heures du matin la ñuy di dem di jaay ganaar. li ko waral di charge bi gàllu ci ndoddam saa su nekk mooy dem ci xelam rawatina njaboot gi mu yore. bu jàlloo ab soxna la soo xamante ne bés bu yàlla sàkk dina dox juróomi kilomètre ngir dem ci bërëbu liggéeyeekaayam bi nga xamante ne fii lay jaayee ganaar li ko waral weesuwul dund gu métti gi nga xamante ne moom lay jànkuwanteel. réew mi nag métti na métti boo xam ne da ngay jaay di jee lii di kii dëkk bi daal métti na moom réew mi métti na yëf yi naqari na mu ngi jóg nag di daanoo ko jóg rek. ci kër gi Fatou Cheikh Tidiane wetu Medina Baye fii la dëkk noor bi dinay am jàmm gaa waaye nawet li koy wër lépp ndox la yoon muy wéyal liggéeyam ngir dundal njaboot gi gàllu ci ndoddam ci biir département bu Kaolack. ndax loo jàpp mu seey ci sa loxo. te liggéey ganaar bi. fooy jëlee ganaar yi. luuma laa koy jëlee si luuma yi rek la ñuy wër waa di dem ak a ñëw dangay jënd ñëw bala ngay egsi sax lii faatu ci sa loxo ndax jamonoy tàngoor ci lañ ne. dundam dal li xajam lool ndax jafe-jafe yi nga xamante ne mu ngi ko ciy la mu boole ko nekk ci biir néegu sëyam di jàmbaar ju ñu ràññee lool la ci waar wi mu nekk bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel jigéen ñi di 8 mars moom lu muy dégg rek la. man de xàmmeewu ma ko 8 mars ak 7 ak 9 xàmmeewu su ma xëyee rek ñëw naa waaye taxul benn yoon mu daal di découragé ndax jàpp na ne ñàkk jëriñu gu olof Njaay wax buum gi mu téye bu dakkul dina dikk. ah métti na kay métti na waaye nag moom gor liggéey lañ ko xame ngeen fukk jàpp juróom fukki at ci lay toll naataangoom beneen boo xamante ne. mu ngi feggoog moom ay ndaa lay jaay moom itamit situation yu ni mel lay dund ak njabootam bés bu yàlla sàkk mu jaabante diggante marché Medina bàyyi ak këram lu mu dundee saa su nekk moo ko tëwit. ñu ngi dund met añ reer ndékk te sa jëkkër la mu war a am amu ko nga yor njaboot ku ndaw war leen a mën a jàppale ci lépp man ay ndaalaay jaay ak ay ànd bu ma jaayee tey bala may jaayee te yàlla xam. ak lu mu ci mënti doon jafe-jafe bi ni mel. bu dee ne 100 pour cent la jigéenu Kaolack 70 pour cent yi yëpp moom la ñuy jànkuwanteel mu jot ñu laaj ane financement yu ñu leen digoon wala yu ñu leen jox yenn kàddu yi bu campagne amee ak yenn digge yi mu jëm ci dinañ leen wutal liggéey gunge gi dina am wala sax dinañu leen financé waaye bés bu yàlla sàkk bu élection dëddoo dige yi fàtte nañu ko jëf ji kenn du ko gis. gis nga jamono euh, jaajëf Cheikh Tidiane Diagne ak nag lum ci mënti doon am na ca jigéen ñoo xamee ne ñoom xaaruñu kenn ci lenn ña ngay taaba taaba ak daan doole ngir lu ñu yóbbul a njaboot ga donte ne risques yeeg coono yi moom foo ko takk rek weesu na ko Fatou Diouf waxtaan ci ak Cheikh Tidiane Diagne. 4 heures la ñuy jóg jàpp julli ñëw utal si marché léeg loo nga ñëw indi bagage mu jeex nga ñibbi léeg loo nga ñëw du jar nga naa ma muñ ba ngoon ndax ma am lu may bu sama kër coono ñëw na waaye bu fekkonte ne te nit ñu doole leen nii nii nii ci biir marché bii doole lañ ko si ndimbal jàppale ñu jàppale ñu suñu njoboot soo gisee ñuy jog quatre heures di ñëw di daanu pour jàppale suñuy doom jàppale ñuy goro moo tax ñuy fajaru di ñëw fii nga jóg quatre heures du matin diggante marché ak sa kër ñaata kilomètres la war naa mat dix kilomètres su may xëy si ma dox ndax coono alors lan mooy risque yi ci yoon wi risque yi lu ne mën na la seddal mën nañ laa dagandu la seddal daanu si yoonu say njaboot du njëkk te fekk loo leen jàppalee rek la mën nañ laa kar jël sa alal ndax loolu bari na fi nga jóg 4 heures nit ñëw yor paaka ne andi li nga yor da nga koy jox nooy def bu baax xam nga keroog ba doo jaay da ngay wëññeeku ñibi waa lijjanti waloo jaay nga andi ko des fois bu bëri dund nañ ko fi ndax fii hôpital bi def nañ ko fi ñetti at ci lay toll ñëwut goroom am doom 4 heures mu jóg dem di ko jëli ñu gar ray ko xam ga fekkoon ne matuwaay mën nañ sëkk yoon yi ñu teg ci ñoo xam ne buñ ne la aloo li nga yor andi ko nga mun a gestu nit ku gis ku la ko dimbale loolu manqué na trop ci yoon yi sama bàjjen keroog lañ ko dagandu génnee paaka jël téléphone jël xaalis xaalisam loolu moom war nañu cee jàppale lool ci yoon yi ak jigéen yi mënuñoo toog foog ñu jàppale suñuy doom toog bi ñuy toog daal yan na yéex buñ toogee du dox di buñ amoo si loo jàpp di fekkee ne amoo doole kër ga métti na sa doom loxoom jotul ginnaawam mënoo toog di ko xool ko bu dee ci reer la bu dee si ndox la bu dee saabu bu dee omo xam nga omo bi ma jël léegi téeméer li tax ma jël ko bu jarul dinaa ko fay est-ce doom bu ko yorul fi ne nii bu demee bu ma ñibbee fi ne ñu ngi may séentoo mbuusa omo gi su ma demee jox leen ñu raxas waaw nga jënd saabu yóbbu nga jëkkati njëgi jàppale sa doom ak sa njaboot kenn mosu fee andi ndimbal ne maa ko ndimbalee jigéen ñi kër yañ nekk man de mosuma faa lekk ndimbal nga leb jox ko mu jënd ceeb jox ko mu jënd diw ngay daana ko jog deer bi bañ ko fi waxee ñun gisuñ ko waxoon nañ marché mbiri na ba bindi leen joxuñu dara euh, Fatou euh, Diouf euh, bu weesoo itam nag coonoy dang-dang ñoom tamit jigéen ñi ba jamono ji ña ngay dund nag ay xeeti fitna taxaw seetlu bi nag waa APROFES ak kuréel giile di AADS ñoo ko doon amal jaare ko ci bëccëg ba ñu jagleel jigéen ñi Alioune Badara Diop. 8 mars bés bi nag doon bés boo xamante ni moom lañ jagle jigéen ñi ci àdduna wërngal këpp donte sax nag ñoom jigéen ñi lii dañu yaakaar ne bésu mbégte la wante ginnaaw nag suñu toog waxtaan bu yaatu bu ñu amal ak ki nga xamante ni moo di Ndeye Diagne doon responsable centre d'écoute et d'orientation pour les violences basées sur le genre moom la nag dellusiwaat na ci historique bi nga xamante ni ma waral bésu juróom-ñetti fan ci weeru mars. bi vraiment ay jigéen ñu jàmbaare yoo xam ni ñoom ñoo doon xeex affaire 8 mars bi ku mel ni Clara Zetkin ndaxte moom dafa gisoon ni ay ouvrière ay jigéen ñu jàmbaare ñoom ñoo doon xeex seen àq ak seen yelleef ci Saint-Pétersbourg te nit ñi dañu foog ni fet la mais du fête euh, l'occasion de faire un bilan ab taxaw seetlu war nañ ko def ginnaaw nakk jafe-jafe yi nga xamante ni dañ koy faral di gis te jigéen ñi di ko jànkonteel moo xam nag wàllum agression sexuelle wala sax wàllum violence bi nga xamante ni nemmeeku nañ ko loon ci àdduna wërngal këpp rawatina suñu réew di Sénégal Ndeye Gnilane Faye moom mi la nekk mooy présidente association action pour le développement du Sénégal fii ci doon bu Kaolack. waaw loolu moom mën nañu wax ne que dafa yàgg na suñu société yi ndax li tax violence am mooy ni nga xam ne noonu la société bi tëddee maanaam cër bi nga xam ne moom la ñu jagleel jigéen donc yaakaar nañ ne jigéen dañ ko dañ ko suufeel dañ joxuñ ko gëdd respecté wuñ ko boobu mooy indi la violence mooy indi métital yi nga xam ne moom lañ leen moom lañ leen di teg xëy na léegi li ko li tax mu gën a fës mooy que ne médias yi dañoo gën a bëri réseaux sociaux yi tamit dañoo gën a bari te nit ki euh, ak euh, benn élément bu ndaw rek mën nga tasaare information bi gën a tuuti et puis aussi y a le fait que ne organisation de femmes yi liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey tax na ñi ñi di ko gën a denoo que avant parce que kenn mun kenn mun ta wax ne violence léegi rek la fi nekk mais c'est que au dafa yegg benn gravité boo xam ne jégg na dayo moo taxoon nit ñi di ko yëg yu bëree bëri nag dañ ciy faral di gis taxawaayu jigéen ñi kii moom ab arbitre la di wéy ci tuuru xadi yàdd waaw lu tax muy metti mooy dañ naan yow góor ñi rek ngay àndal te man presque fii nii sax arbitre yi ñu may àndal ñëpp góor lañ te góor ak jigéen mooy loolu dañuy wax mais yow jigéen gi yaay am sa fulla ak sa fay dara xam yow loo bëgg ni ngay ànd ak ñoom arbitrage kese moo leen lié du leneen bésub 8 mars ñu koy célébrer nag bis ki tey juróom-ñetti fan ci weeru mars atum 2024 fii ci doon bu Sénégal nag revendication yi fokk natt wees na ko doléance yi moom ci ëpp moo di wàllum viol bi nga xamante ni nemmeeku nañu ni bari na lool ci jigéen ñi donte sax na état bu Sénégal àdduna ci loi bi nga xamante ni dafa criminaliser lii di viol bi wante ba waxtu bi toll moom jafe-jafe yi moom day di fës ci suñu réew bii di Sénégal. Ndiaw euh, des Thiaw Xambine Luna Badara Diop ñii di soxna yi nag nee naam itam ay jàmbaar lañu euh, lool waaye nag des na ba léegi rek ay mbir yu bari bare bari yoo xamee ne ma nga leen di gàllankoor ba tax na nag ñu ngay sàkku rek ci état bi ngir itam mu appliquer euh, loi ya ñeel seen ak mbir Ndeye Diagne bu APROFES moo doon amal xayma ga. xam nga jigéen ñi comme que gis nañ ni bi ñu xayma ne jigéen ñi ñu ñu ci bëri amuñu maanaam comme amuñu ay revenu liggéeyuñu ndaxte liggéey bi ci góor ñi la ëppee moo tax ñoom li ñuy revendiquer lu bari mooy ñu am maanaam am am koom ndaxte vraiment gis nañ ni jigéen ñi ay jàmbaar boo jógee 6 heures du matin ak yooyu booy gis si mbedd yi jigéen ñi ngay gis ñuy dem si luuma yi jigéen ñi ngay gis ñu dem si yi ak yooyu jigéen ñi ngay gis tamit ñu ñëw nekk si biir kër gi ñu ngi togg ñu ngi fóot ñu ngi seen njaboot ak yooyu yëpp xam nga ne di gérer waale seen boroom kër loolu aussi dafa dafa doy waar moo tax ñu ne jigéen ñi il faut ñu am koom te balaa ñoo am koom il faut aussi ñu am yenn formation yi yombul ndaxte ñun depuis lors ñu ngi def ay plaidoyer te pour wax la ne rek ni Sénégal pas en reste sur euh, le kii les textes internationaux que vraiment li doy waar rek mooy application bi mm-hmm. waaw ñun application bi rek lañ ko laaj mais laajuñu leneen daal mais mu ñu appliqué wul loi yi loolu dafay indi gàllankoor si maanaam communauté bi loolu vraiment day tax aussi ñuy gën a nasaxal te état bi moo yor sécurité doomu aadama yi ndaxte ñoom lañ ko jox mais gis nañ ni nag vraiment du wax lu ñu neex un sécurité bi am Sénégal amul fenn waaw kon nag il faut ñëpp dem dans l'unité pour vraiment affaire boobu jeex ndaxte toujours ñuy signer convention yi di signer charte yi di signer protocole yi ak ay affaire yooyu di ratifier te bu ñu ñëwee duñ ko appliquer xam nga loolu aussi c'est du folklore wala bu fekkee ni jublu nga doo def dara bu fekkee ni ci baadoola yu mel ni man lañ jublu ah nga appliqué loolu tamit dafa doy waar ñun nag moo tax toujours dañuy def plaidoyer pour vraiment ñoom ñu dégg ñu ñu ñu pour appliquer effectivement les lois. Ndeye Diagne bu APROFES ca geneen wàll ga kuréel di lee di AADS ñoom it tamit nag ñu ngay seen ak waar jëmee kon ca xeex ba ñuy xeex métital jigéen ñi jaaree ko nag ci soññe geeg ñaaxe gi ba ci wàllum ay yeete gi askan wi yëpp nag la ñu bëgg ñu dugal ca seen i ay yoxo nday ñi laan fay njiit la Alioune Badara Diop. je pense que ne solution bi moom mooy pour que ñëpp soob si seen loxo parce que mbir mi nekkatul mbiru jigéen kese xeex bi dafa war a nekk xeex boo xam ne góor ak jigéen mag ak ndaw ak aussi ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk ay ndomb tànk dañ si war a dugal seen loxo parce que bu fekkee dañ ko bàyyee jigéen bàyyi ko ak organisation am famille kese amaana dina fi jóge waaye dina yàgg parce que pour nga mën a xeex dara il faut nga xam ko a sensibiliser maanaam xamal nit ñi ne que violence nekkul lu jaadu nekkul loo xam ne dañ ko war a teg doomu aadama parce que loolu mooy wane que ne nit ki ngay nit ki kay métital yow euh, maanaam reconnaître joxoo ko gëddam en tant que doomu aadama moo tax nga koy def loolu ki nga xam ne tamit moom la ñu métital il faut mu xam ne que métital nekkul lu normal nekkul loo xam ne dañ nit jigéen daf ko war a supporter parce que loolu tamit il faut que ñu taxaw si wax si ndax jigéen ñi ñu si bëri surtout jigéen ñi nga xam ne ñu ngi dugg si ñeegu si yaakaar nañ ne sëy dafa méngoo ak ñu lay teg métital du loolu donc bu fekkee ne xamoo ko nag da ngay toog continuer di ko subir ki koy def tamit bu fekkee xamu ko day yaakaar ne moom il est dans ses dafa war a dóor dafa war a saaga parce que nee na soxnaam la donc il faut que ñu sensibiliser mais il faut aussi état bi dugal si loxoom c'est que at yi ñu passé yëpp mu ngi doon wane que ne taxaw na pour xeex métital waaye jël ay loi kese dafa doyul loi yooyu il faut ñu jëfee ko waaye aussi am na leneen loo xam ne war na ci topp maanaam nit ki nga xam ne dañ ko métital ba pare war nañ kaa gunge war nañ kaa jàppale ba mu a dellu si nekk nit si biir société bi euh, euh, Faye euh, madame Ndiaye euh, jigéen ñi nag fii ci réewum Sénégal yàgg nañoo xeex yàgg nañoo bañ yàgg nañ itam nag di laaj seen i àq ak seeni i ay yelleef union euh, des femmes du Sénégal ba ñu taxawaloon ci atam 1954 mu mel ni ki nag liggéey na ca liggéey bu rëy a rëy àggale itam nag jigéen fu sore sori jigéen ci Sénégal laata indépendance ak tey jii gëstu geek Ndeye Fatou Cissé. jigéen ñi nag bi ñu amee ay jigéen ñu commencé jàng commencé di xool di gis di dem ak di ñëw ah ñu commencé gis ne ñoom i tamit kat mënuñoo yem rek ci di fal ay góor ñoom i tamit war nañoo mën a falu d'autant que ñoom li góor ñi jàng jàng nañ ko li góor ñi xam-xam nañ ko kon ñoom i tamit dinañ war a jéem a falu. bala nga naan naam ne fa tax ba jigéen ñi teel a jug euh, ngir dëggal seen bopp droit ya ñuy sàkku ñu féete nag ca fa nga xam ne lu ca sooxe daañu ko mën a joyanti. même bu fekkee ne faluwuñ it fa ñuy yi fa ñuy élaborer politique yi man tëral jigéen ñi surtout que problème mu jigéen ñi kenn waru leen koo gën a xam loolu moo indi bi ñu demee ba indépendance bi di waaj a jub si ci la ñu gis nag jigéen ñuy feeñ commencé di revendiquer ñu boole leen ci place yi nga xam ne fa la décision yi di génnee. 1963 gannaaw indépendance. ku mel ni Caroline Faye li tax ñu ne Caroline ndax moo njëkk a doon jigéen bu doon député 1963 même bu fekkee ne avant moom am na ñoo xam ne xëj na falu woon nañ ci conseil municipaux yi am ni Amsatou Diop ci Saint-Louis mas naa nekk conseillère municipale à Saint-Louis ci période boobu aussi gis nañ ne am na ay candidates yu jigéen mais même bu fekkee ne faluñ leen au moins bokkoon nañ ci ñiy kii mais daal moom lañ jàpp ne mooy première femme bu doon député au Sénégal parce que Senghor dugaloon na ko ci biir bureau politique bu parti socialiste ku mel ni Rose Bass aussi Senghor dugaloon na ko ci bureau politique UPS ba tax na moom lañ nommé woon ci UPS secrétaire à propagande loolu yëpp bu mënee am c'est que dañu gis ne jigéen ñi ci seen bopp 1954 bi ñu xoolee ba xool ñu créé association bu ñuy wax union des femmes du Sénégal mu liggéey liggéey bu rëy ci jigéen ñi ba wan leen ne daal ñoom itamit war nañoo mën di yëngu ci réew mi parce que war nañoo mën a bokk ci décision yi nit ñuy jël même bu fekkee ne union des femmes du Sénégal boobu association apolitique la woon li ñu seetlu mooy ne pratiquement jigéen ñu bëri ñi ci nekkoon jabaru ñi doon def politique la wala ñuy seen mbokk yu leen jage amee ku mel ni Rose Bass ku mel ni Jeanne Martin Cissé ku mel ni Aïda Sarr ku mel ni Aram Cumbe Samb donc ñooñu ñooy vraiment femmes yi nga xam ne ñoo njëkk dóor ci bunt yi wane ne jigéen ñi it war nañoo mën a bokk ci politique bi. droit de vote ba ci loi sur la parité bi nga xam ne nag donte ni bokk na ci mbir yi nga xam ne jigéen ñi mën na kaa joxoñ baaraam ni lu ñu mën a ndamoo am na luy wéy di ca sooxe ba tey jilee ni ci yeneen mbir élection ñeent yi kenn képp moo si jigéen na. yéen a déglu xibaar yi ci Alfayda FM Euh, ngeen di euh, wéy euh, ba tey nag di fi toppandi jukki xabaar yu wér te wóor cadre des femmes pour l'émergence de Kaolack di CAFEC kuréel googee nag jaaree ko ci bëccëgu 8 mars bi ñoom nag ña nga doon fàttaliku rek jigéen ña nekkee ca maison d'arrêt et de correction bu Kaolack bi lu ni mel nag ci ay ndimbal yu am am solo ki Kiné jaase lu kuréel ga wundu ak nu ngeen toll.

sër parce que fekk nañ leen fi ñu liggéey liggéey bu am solo maanaam dañuy ràbb ay sër donc mu ne loo xamante ñu koy ràbbee sër yooyu ba nga xamante tey jii dañ gën a mun a yokk liggéey bi nga xam ne ñu koy def ci biir parce que ñu def liggéey bu am solo gis nañ ko macha allah ñu koy rafetlu bu baax a baax parce naka la mun a def ba mun a bokkaat ci société bi ndax ci lañ bokk donc loolu mu nekk loo xam ne ñu gisoon ne buñ ñu ko bu baax a euh, ca mag ba ak it nag njàppandal ga ca am tukkee ko ci administration ba doon na nag lu ñu doon rafetlu lu mooy loolu itam waxtaan nañoo ak jigéen ña am fu ñu leen di xaar ay kàddoom ba tey ak Cheikh Tidiane Diagne. yaakaar naa ki lay jàppale te nga nekk fii yaakaar naa boo génnee ci biti tamit du taay ci jàppale bi maintenant ñoom su fekkee ne bëgg nañ ñun Café bu leen neexee mën nañoo intégré Café suñu intégré Café nañ leen wan yoon yi ñuy jaar ak buntu yi ñuy jaar ba nga xamante ni danañ mën a nekkaat si seen activité parce que je sais que am na ci ñoo ñu woon activité activité mais bu ñu ñëwaatee dinañ leen teg ci yoon ba nga xamante ne mun a nekk ci acte dinañ leen boole membre yi nga xam nañ li nga xamante mooy produit yi jëndal pour jigéen ñi ak saafuwante ak ñoom te ñu yombal ñu ko lool ma ci gërëm ki nga xamante mooy directeur bi ak ki nga xam ne mooy responsable action sociale bi

vraiment lii a la gën a soxla que ne nga toog di ko woy la ko feccal nga jàppale ko ca lim gën a soxla donc ñun nag suñ tolloo nag ci mbumbaay ak xumbaay nag danañ ko def danañ fecc danañ tàcc mais nag li gën a am solo mooy nit ki nga fekk ci ko ci lim bëgg nga jàppale ko ci loolu loolu donc ci noonu lañ dox ñun tey. mu nekkoon ay kàddu ya Fatou Kiné Diasé njiital Cafek ñu des ba tey nag ci wàllum social ci ñaareelu pàcc boobee ak it lu ma leen junjoon gannaaw nag lëngoog ONG bi lee di Alfitiano ONG bi di Qatar Charity moom nag ma nga doon taxawu lenn ci ay néew si doole fii ci diwaan bi lu ni mel nag ci ay denrées alimentaires yu ñu doon joxe ndimbal loolee ak jamono ya ko andee Ismaïla si moo ca doon addu

Cristiano yàgg na ci liggéey bi am na ay jumtukaay yoo xam ne moom bu ci basé li mu soxla dana ko yóbbu fi mu bëgg mu dem ci la ñu jëlee comme partenaire ñu ànd ak moom bi ci liggéey liggéey boobu nag mu nekk boo xam ne sénégalais bu ne la war war na la yow war na ma man war na soxna si ku nekk suñu li nga am war nga si mën jël pour dimbale ñi nga xam ne yaa ngi jàkkaar la ñoom bés yàlla sàkk nga xam ne mënuñu donc ñoom bu ñu diggee ci jamono ji au xam ne foo ko fekk ñu jógee ci nit ñi jëm ci nit ñi lay toppatoo loolu itam dafay doone ne Sénégal am na ay jumtukaay yoo xam ne bu ñu leen dimbalee jàppale leen mën nañu liggéey liggéey bu bari boo xam ne dana wàcceel état bi yenn coono yi waaye nag loolu it dafay laaj tam mu am benn yombal boo xam ne réew mi dana ko yombal ONG yi ñëw pour ñu mën a jëflanteeg état jëflanteeg njoobal du tere nag état en tan que kilifa ak ne àdduna lay doxee ONG bu ki nekk itam mu càmbar la la tax a jóg ak foo jëlee ak noo koy doxalee loolu itam am na solo waaye daal mu loo xam ne dafay yomb parce la jëm te dund askan wi ak jàppale bi état bi la waaye nag war na képp koo xam ne rek yaa ngi dund ki diine l'islam te l'islam mooy diine bi nga xam ne dafay jàppal dafay laaj ñu jàppalante dimbalante yërëmante te loolu nag dañ koy mën a def ci dund gi def ko ci jàng bi def ko ci wér gi yaram bi ci loolu nag ki la ñu nekk di kontaan trop wax dëgg yàlla ci ci euh, seen patron bi di kontaan ci Qatar yi di kontaan ci yéen ñi nga xam ne aussi vous êtes sensible à ce qui se passe dans ce pays parce que je crois la presse c'est le le plus sensible fois bu ngeen wooyee di ngeen ñëw fu ngeen ñëwee da ngeen koy gërëm di euh, bi di gërëm monsieur Seck di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi fi di ñaanal ñi nga xam ne affaire bi ci ñoom la jëm yàlla may leen yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dina ñëw fekk si leen foofu parce que tax euh, na moo yore wàllum jokkaloo ga ca àll fitiyaanu euh, ndimbal loole nag ak fa mu jëm solo si mu am waaye tamit nag waxtu wanu ko joxe moom directeur régional action sociale bu kaw Kaolack bi dikkaat na ci ànd ak itam am ca mbégte lool sa euh, sa Seck mi ngi ci micro Alioune Badara Diop. ñi ngi am kontaan tey Qatar Charity yi nekk ONG boo xamante ne vraiment dafa ñëw pour jàppale ñu ci gunge ñi nga xam ne dañu amee jafe-jafe au niveau de la région de Kaolack ci ñooñu ñu mën a tudd ñi nga xam ne dañu amee laago ñu mën a tudd ñi nga xam ne aussi ñi ngi ci kër diine yi ci daara yi ñu mën a tudd ñi nga xam ne aussi seen jëkkër dañu wàññeeku ak bépp nit koo xam ne dafa néew doole au niveau de la région de Kaolack donc Qatar Charity ñëw na pour jàppale ñu tey ci 600 kits yoo xam ne vraiment ñu ngi ko jagleel région de Kaolack ñu commencé ko déroulé tey ànd ci ONG aussi Alfitiani bi nga xam ne vraiment jàppale nañ ci ciblage bi donc en dehors de li ñu def Kaolack ñi ngi woon au niveau de la région de Kaffrine aussi ci ñaari fan yee ñu weesu ñu def lu mel nii au niveau de la région donc mu nekk activité boo xam ne activité bu am solo la ndax nit bu néewee doole li nga xam ne moom mooy ñëkk nekk problème am mooy nan la ñuy def ba njaboot gi dund te lii nii dafa ñëw vraiment pour soulager population yooyu contexte bii nga xam ne aussi dañu nekk ci waajtaayu koor chrétiens yi nekk ci carême donc vraiment dafay ñëw dimbali leen pour que vraiment ñu mën a am dund bu mucc ayib au moins ci weer wala lu ko topp loolu vraiment rafetlu nañ ko bu baax ñi ngi aussi wax suñu disponibilité collaborer ak ONG bi nga xam ne vraiment moom la ñu commencé liggéey bi semaine yi yëpp ñi ngi waxtaan ci yan possibilité la ñu am pour étendre collaboration bi lu jëm ci mbirum njàng mi ci mbirum formation professionnelle activité génératrice de revenu ndax nit bu néewee na mais ko ba mu a demal boppam je crois moo gën te loolu aussi vraiment bokk ci schéma boo xam ne ñi ngi ciy xalaat ñi ngi ciy waxtaan xëy na bu sottee danañu gis beneen euh, vision. Euh, fii ci euh, Kaolack nag moom kenn ca ña jotee ca ndimbal loolee nee na nag jëf ji rafet na Birame Thiam gannaaw ñaan nag ne sant nañu gërëm bu baax ñaari ONG yi ci kàddu yamu ñu jotal. waaw sant yàlla rek sant yàlla bu bari di leen ñaanal it suñu borom yokk leen ñoo xam li ñu def ndax euh, wax dëgg fi yàlla jamono ba si jamono bi nga xam ne koor mu ngi ñëw ak jam dëkk bi ni mu dëgëree nii ñu jël ko jël ci dund yëkkati yi jaamu yàlla yi dañ ciy sant yàlla waaye nag euh, dañ leen ciy sant yi ndax nit bu defee lu baax dañ koy sant te ku gërëmul nit doo gërëm yàlla ñu ngi leen ciy gërëm bu baax a a baax di ñaan suñu borom yokk leen jazakumullahu xayran ñu dem euh, waxtaane geneen mbir gu aju itam ci wàllum njàng ak njàngale gannaaw liggéeyam bu rëy ak taxawaayam bu rafet ci fànn googe ba àgg euh, ci la ñu tuddee à la traite moom nag Chérif Abdoulaye Faye ña nga ko doon sargal euh, fële ca commune Diagane Barka gannaaw mbir ma nag yëkkati na ci ay kaddu yëg-yëgam waaye itam lam fa jot a dund ay kàddoom Serigne Gueye moo ko taataan. On m'a nommé principal dans mon village natal où je retrouve mes amis yi nga xam ne amis d'enfance la lépp luñ doon fayee ñu ñoo doon ànd di fo bu dëgg naree ñëw parfois mun na ñëw gis seen bopp waajur bi nga xam ne kilifa la moo nga nekkoon xale na loo xam ne boo ko buggee appliquer par la loi mu ne la xale bu ndaw du ma donc paramètre yu bëri dañ ci waroon tenir en compte en plus nag xale yi nga xam ne dañ doon échec te ñu bëri yaakaaroon ne bëgguñu woon a jàng si parce que condition de vie moo difficile woon xale yooyu il fallait au moins les maintenir de sorte que xale yooyu mën a réussir et je pense qu'on peut citer beaucoup d'exemples fii nii ñoo xam ne recasé wu loon dans l'établissement te je disais rôle boobu laa fi doon joué ma démarré dans des conditions extrêmement difficiles parce que premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye moo ñu abaloon bâtiment deux salles de classe ñu mbaar ku wax mbaar noor bu ngelaw lu ñëwee poussière ba dugg bu jaani ñëwee dugg quand jaagaan dafa nekkoon loo xam ne amul lu bëri ñu yaakaaree ni nitu àll donc il fallait que ñun ñëpp ñu accéder aux nouvelles de l'information de la communication pour ma nekk au diapason comme deux ans nga dem ma ne ko waaw mu ne pourquoi nga accepté koo signé ma ne ko pour mon village si je n'avais pas signé cette demande ou bien si j'avais refusé bu waree am day am après des ak waaye bu fekkee su ma signature taxoon amut mon enfant qui fait aujourd'hui la terminale j'allais l'amener au lycée de Djilor ou bien au lycée de Passy en cherchant des tuteurs alors faisons la comparaison est-ce que signé gënutoon je suis allé à teewaayu njiital bokk moomeel ya euh, maire ba euh, nga xamee ne moo faree foofee nag moom sax sargal na ko delloo ko njukkal euh, ca kanamu mbooloo ma naka noonu itam daal di koy seedeel ma Bousso Diallo ñi ci waxukaayu Serigne Gueye. ñu ngi sant mbooloo mi yëpp di nuyu mbooloo mi yëpp ku nekk turam ak santam commencé si sous préfet ak autorité yi fi nekk yëpp conseil départemental proviseur général Wagan ak ñëpp ak aussi sama collègue maire yi maire Niassène ak maire wax rek tey journée bu xaw a difficile la woon jël parole sax avant sama jël parole su ma sañoon man maa njëkk wax mu wax te loolu su ma ko waxee moom xam na man xam naa ko nit ñu bëri wax nañ nag mais ñun aussi en tant que jeune ñu nekk si commune bi mun naa wax ne depuis commune rurale ñu ngi cheminer ak moom amicale élèves étudiants ressortissants de la commune rurale de Diagane Barka bokk naa si quatre personnes yi nga xamante ni xelaat nañ ko toog tëgg ko ba taxawal ko te yàlla def na boobu ku xam étudiant ak bëri biir wi ak mën a kaas moom la tegoon fii si kanamu commune mu nekk président commune rurale ma nekk président à chaque fois suñ ko doon woo ci la doon jaar lu war a ñëw si ñun ci moom la doon jaar mu nekkoon suñ mag di ñu encadré université damay rappelé wu transition 2010 2011 2012 ku nekkoon Sénégal xam nga tension yi fi nekkoon mais ñu nekk fa soo gisee tumaranke wuñ moom la enveloppe bi mu ñu njëkk envoyé 200 000 francs sama loxo la jaar mu ne jëndee ko ticket yéen étudiant jaagaan yi ngeen séddoo ko pour ngeen jàppal ni ko seen seen kon kooku suñu waxee ne tey ak jaar-jaaram xamante day doxal dëkk bi moom mu ngi ci man du ma toog deux mois yu ne wala un mois day jaar sama bureau ñu toog waxtaan daf may tegal lu bëri nag parfois mu ne ma il faut être scientifique il faut agir en scientifique donc di la ñaanal carrière bi nga xamante ni tey yaa ngi koy feete liggéeyal sa réew ba tey toog sa njaboot say xarit say am di jàmm say dëkkandoo ñu lay rendre hommage loolu xale bu nekk loolu lay rêvé ku nekk loolu lay ñaan donc képp ku fi nekk amoon ci commune Diagane mais aussi si ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. yéen gi ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1. Euh, ñetteelu euh, pàccu euh, xibaar yi ña ngi ko jagleel wàllum politique bi ak it lu soxal présidentielle yi datu élection ya ñu jàpp ñaar fukki fan ak ñeent ci weer ak mars gii ñu dëgmal campagne beek bés yu néew yi moom nag Déthié Fall la mu ca xamle kon weesuwul ne ak lu mënti xew moom dibeer dina wàcc ci arène politique bi amal campagne waaye nag la muy réccu kon mooy ne li fi jaar yëpp te mujjee fii ay kàddoom moom Déthié Fall ñu déglu ko.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 maanaam élection nga xam ni dafa war a am ku gagné gagné ku yàlla teg teg ko ñu mën a avancer jàll ci leneen parce que kenn ignoré wul que le projet moo doon reprendre également le processus électoral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 xabaaru euh, biti réew Alioune euh, Badara Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar baax a baax soxna Ngone xibaari bitim réew na def kay door ci réew bu Nigéria ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi féete àdduna wërgal këpp bés bi nga xam moom na jagleel wàllum jigéen ci àdduna wërgal këpp ci noonu nag jot nañ nemmeeku lu ëpp téeméeri doomu aadama yoo xamante ay jigéen lañu jamono toll teg leen gën na doon loo xamante lu jafe yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofu ca bët ñu def lu ñu mel nag du ñeen ñu di way jaar si nga xam nañu nekk di démb ak kuréel gii di AFP nekkat lu tolloo ko ñaar fukk ak juróom-ñaari doomu aadama doon ay jigéen nag jot nañ leen kidnappé yi foofu ci réew bu Nigéria mu doon mbir moo xamante ni jamono toll nag doon na loo xamante ni lu gën a fës la ci fitna yi nga xamante ni jigéen ñi moom ñu ngi koy jànkonteel foofu ca nord est bu réew bu Nigéria. xabaar yi bitim réew. dem ca réew bu Cameroun wax ci ki nga xamante ni moo fa nekkoon sous préfet foofu ca gox bii di Ebolowa te ju ko loxo nag ginnaaw bi nga xamante ni ñu ngi ko doon ci wàllum faat bakkan moom it ne atte ba jib na ci noonu nag jot nañ ko daan lu tolloo fukki at yoo xam ne ko tëdd kasu ginnaaw bi nga xamante ne nag loxoom laale woon na ci mbir mi nga xamante ni moo ñeel faatu benn ndaw boo xamante ni ab jigéen la woon foofu ci réew bu Cameroun li mel la mënuñ wax ne xeex la boo xamante ni association yi nekk foofu ci réew bu Cameroun di xeex ak ak yelleefu doomu aadama yi rawatina wàllum jigéen ñi waan tamit ne mbokk nañ ci tamit kuréel gii di Women Rights Watch mi nga xamante ni nag dugal na loxoom bu baax a baax ci xeex bi ni mel ngir kat ñu mun indi woon ab leeral jëmale ci faatu bu ndaw bi nga xamante ni ñàkkoon na bakkanam ci jamono ji nga xamante ni nag sous préfet boobu lii moo nekkoon foofu ci Ebolowa ginnaaw na àtte ba nag ca tribunal bi nekk foofu ci réew bu Cameroun nag jot nañu jëbal lu toll fukki at yoo xamante ni des na ko tëdd kaso xibaar yi ñu ko jot ci njàppandalu collectif bi nga xam ëmb woy avocat nga xamante ni ñoo nekkaloon famille ndaw si nga xamante ni ñàkk na bakkanam foofu ci réew bu Cameroun xabaar yi bitim réew jeexale xibaar bitim réew ca réew bu Tchad ginnaaw bi nga xamante ni nag jàpp nañ élection présidentielle juróom-benni fan ci weeru mai atu 2024 bi ñu nekk foofu ca réew bu ñu ngi nemmeeku ni ca conseil constitutionnel nag li nga xam moo di dépôt candidature yi commencé nañ ko waxtu bi ñu toll nag conseil constitutionnel moom moo leen mu commencé enregistré doomu aadama yi nga xamante ni fas nañu bokk si jongante bi nga xamante ni mu ngi war a am foofule ca réew bu Tchad ngir kat mën a am ab tabel gu yees maanaam ab njiitu réew boo xamante ni bu bees lay kon nemmeeku nañu nag dépôt candidature yu doomu ki fi nekkoon njiit réew ma di Idriss Déby Itno jamono toll na ki nga xamante ni moo di Mahamad Idriss Déby déposé na candidature am ngir ka mën a doon président bu yees foofu ca réew bu Tchad. xabaar yi bitim réew. sant la gërëm la bu baax a baax ngoon Ngoni foofu la ñu yem ci xibaar bitim réew yi yàlla mi borom jàmm te ko mu jàmmal nga am jàmm yàlla ñu may jàmm juma mubarak Serigne euh, Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaan leen jàmm di ko sàkk ci ñoom. xibaar bu càgg jërëm yi dañu koy doore ak euh, Jeux africains yi am ca Accra 2024 bi nag di fukkeelu édision bi ak ñett Sénégal démb am na médaille bu njëkk ci euh, li nga xam te ni moom mooy tennis euh, de table buñ ci jógee nag ca football ñi di waa équipe nationale U20 gonek Serigne Saliou Diaye dañoo dóor ñi nga xam ni ñoom ñooy Soudan du Sud benn bal ci dara ouverture officielle yooyu les Jeux sax tey ji lañ koy amal foofu ca gana football la ñuy waxtaanee ak euh, Ligue Europa huitième de finale aller démb Liverpool nag dafa fekk ñi di waa Sparta Prague door ko juróomi bal ci benn AS Roma dafa daan Brighton ñeenti bal ci euh, dara. ñi di waa Karabakh FC ak Bayer Leverkusen ku nekk euh, ñaari bal nga dugal sa morom bu dee Ligue conférence nag Sturm Graz lii la ko fekk daan ko ñetti bal ci dara Molde. dafa daan Club Brugge ñaari bal benn benn Ajax Amsterdam ak Aston Villa ndam demul ndam dikkul Olympiakos Maccabi Tel Aviv moo ko daan ñeenti balti benn Ligue 1 ñaar fukkalu bëccëg bekk juróom tey ji lay door Nice dina laaleeg Montpellier tey bu juróom-ñetti waxtu jotee ca Espagne moom bu juróom-ñetti waxtu jotee FC Barcelone mooy laaleeg euh, Mallorca ca Allemagne Bundesliga bi foofu Stuttgart dina laaleeg Union Berlin bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg euh, fanweeri simili jëm ci ñaar fukkalu bëccëg beeg euh, juróom Calcio italien Napoli dina laal waa Torino tey bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom. Saudi Pro àggale gi Al Tay nag tey dina laale ak Al Azem bu ñaari waxtu jotee Al Riyad di laale ak Hilal bi jotu ci championnat bi Al Ittihad di laale ak. al xóot bu juróomi waxtu jotee démb nag al nasr bu Sadio Mané ñii di waa al rayit ñoo leen fekk daan leen ñetti bal ci euh, benn lamb ci wàccaayam ak digganteem ak euh, Gris Bordeaux fanweeri fan ci weeru juin atum 2024 Ama Baldé fekk ji na ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye 2 foofa ca INSEP ca Paris ngir wàccaayu combat bi ni ma Magog Gone Jaay gannaaw bala ñaanal lekk nday yu jàmm li ma gone la fas ci xibaaru tàggat yaram yi Juma li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf euh, li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadji Seydina lan bikum tey mooy bés bi ñu jagleel jigéen ñi ci àdduna bi di leen sargal ak màggal Allah ba tax yéene kaay tey ñu bëri fa ñoo ñëw tey ci seeni xët 8 mars bi ku nekk ak jigéen ñam tànn nga xam na ay royuwaay lañu yow seetal source a yéene moom fa ñoo xamal ne diiwaanu Louga tey ay jigéen lañu maanaam bànqaas yay doxal dëkk ba tey ay jigéen ñoo ko jiite lépp ngir sargalee ko ko seen bés bi bokk na ca gouverneur bu Louga Ndeye Ngiraan Mbodj moo ko jiite tey préfecture bu Louga jigéen ko jiite police bu Louga jigéen ko jiite muy ñumma jeeju gendarmerie bu luga capitaine bu jigéen moo ko jiite njàng maa njàngale ba iyaa bu Louga Penda Ba di soxna moo ko jiite ak ñeneen laas yéene kaay ne 8 mars tay bi man faa koy jagleel soxna su jàmbaare muy docteur Marie Xemes Ngom jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ay jaar-jaaram ma nga ca biir yéene kaay ba l'observateur mel ni ku naan leen faay bañ ngeen fàtte nag ay soxna yoo xam ne dëgg la siiwuñ seen tur yu bëri xamuñ leen ndax ca xàll ba lañ dëkk kaw ga ay royuwaay leen seen taxawaay ci réew mi fa rafet yaaw seetal ay sataka juróomi kilomètre lay dox bët bu set ngir jaay soow kóor du caw fajkat bu jigéen la ca ngoxi nee na man faay rewle ay soxna yuy am doom diggu guddi lampe torso laay jëfandikoo wala sama lampe portable bi yéen bi na ko gàcce ngalaama ay te kebbe ba moom it jàmbaar la bàjjanu gox la ca diwaanu Kaffrine lu ëpp fanweeri at fay xeex soxna yi nga xam ne fa ñuy xamee doom ci seen biir kër yi léegi a kaay ne Abdoulaye Sylla moom 8 mars bi fa cee sargal Kumba Gawla Seck yuy yëngatu ci wàllu politique koom-koom ak yeneen lii yéen kaay ne waa 8 mars bi fa ñoo sargal Kumba Gawla seek ba tey lee si ko yéen kaay ne 8 mars bi tamit fa cee jox kàddu Zahra Iyane Thiam ma ngay leeral ne benn jafe-jafe doxu diggante moom njiit réew Macky Sall waaye moom wax dëgg su jotee fa koy wax ganaaru kenn ko nanu yor yor yéen kaay moom fa xëy sargal jigéenu Pastef yi yi bokk ci parti Ousmane Sonko bi ay jàmbaar ak royuwaay yeneen jigéen ñu nekk jàmbaar mooy ñu nekk ci këru taskatu xibaar yi journaliste yi rajo yeeg télé yeeg journaux yi bés bi yéen kaay ne man fay sargal ñooñu tey <laughs> yaw seetal may mun a nduur fay Habsa Anne ay taskatu xibaar leen fañ leen a agressé waaye taxut ñu gañe leen de tey lañ gën gëm liggéey bi yeneen journaliste ku mel ni Nafisatu Diouf Aminatu Diop Annette Mbaye Derneville ña ngay wax seen jaar-jaar Sud Quotidien na tey daal nguur gi doole ji jógee na ci góor ñi mu nga ca jigéen ña ndax tey jigéen ñi ñoo xayee ndax 8 mars bi réew mi yéen a na man moom fay sargal mbooleem soxna mbooleem yaay ci Sénégal Afrique ak adduna bi yëpp ndax jigéen kenn mënut koo fay képp kuñ tudd tey la fañ leen a a sargal teral leen waaye toroxal leen fitnaal méttital <laughs> leer ba yegg ca nañ ja mooy ne suba ci ba tax réew mi yéen a kaay ne wuréew a dem na këng waxi mag dem na ndañ taali lu waaye doon jaay léegi tey mu lambu ndax coup d'envoi bi joxe nañ ko samedi bi lay tàmbali campagne bi source a ne ndax yàlla ñu xam candidat yi kan mooy kan kan moo ëpp doole kan la sénégalais yi gën bëgg kan la ñuy woteel ay xat ñu ngi naan élection yi élection yi élection yi coow li bari jàppal fii jàppal faa léegi na caaxaan faaxee ndax conseil constitutionnel xam nga fa jàppoon 31 mars pour bésuk élection yi léegi génn na ca fekki nañ njiit mi Macky Sall na ko 24 mars boobu nga jàpp fekki nañ la ci te d'accord nañ ci te ci lay wote yi am ndax yow rek yaa am sañ-sañu jàpp ay wote ñun fa ñoo jàppoon lépp ngir bañ wote ñàkk am balaa la deux tàbbi ci guuta libération moo ñu ko xamal vox populi dëggal ko ne juróom-ñaari attekat ya ña ca gannaaw 31 janvier moom la ñuy ci candidat yi nga xam ne ñoo war dem RTS ngir enregistré yëkkati fa ay kaddu fi nii nag trois minutes la candidat bu nekk am tey ci àjjuma ak suba ci samedi ji te la dem enregistré ji enquête yéen a kaay mel ni ko naan candidat yi nag faa jàqal fa mel ni ñu bëri si ñoom pareeguñ ndax yëf fa leen a bett amuñ temps ñaar fukki fan rek moo dox seen diggante wote yi ñu war dagaan baatu askan wi joxe seen programme kaay bi na a lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy waa F24 ñoom fa ñoo sàkku ci njiitiram Macky Sall ngir yàlla élection yi na ko dénk koo xam ne farut fenn maanaam ministre de l'intérieur ba léegi ñu ngi xaar kan lañ koy jox donte am na ñuy ruumandaat ca Ndella Fall ne moom la ko Macky nar a jox candidat yi nag li leen jox mooy fukki fan ak juróom ngir ñu convaincre askan wi ba ñu leen quotidien yéen a kaay ne fi mu ni kay conseil constitutionnel jeexal na coow li ak wax ji fi mu toll ni campagne rek ak wote ku mën sa morom rek duma le point yéen a kaay ne waaye man faay laajte njiitëram Macky Sall est gëm na Amadou Ba ndax ñun fa ñoo seetlu daal ne Amadou Ba ak njiitëram Macky Sall ànd nekk benn ambiance bi am ci diggante Sonko ak Jomaay Fay gisuñ ko daal ci diggante Amadou Ba ak njiitëram Macky Sall ndax fële waa Pastef fi ñoom fa leer Sonko mooy Jomaay Jomaay mooy waa APR yi di ko wax waxuma a kaay ne man ministre bi tàmbali jafe-jafe nekk APR diggante mook yenn responsable yi ya turbine yéen kaay moom fa xëy di ñu xamal ne mars ci la ñu amal wate yi su fekkee nag njiitire Macky Sall tekkiwut ndombal tànkam Habib Sy candidat la nee na fay wax yeneen candidat yi ngir ñu xoolaat date bi njiitire Macky Sall jàpp ci wate yi mars bi Aly Ngouille moom it candidat la mel ni ku naan ko hëy fii xamul leen luñ fiy xool ñun ñoo waxoon ne ñoo kontaan ci datu 24 mars bi ñu jàpp wote yi ndax ñoom it li ñu doon xeex mooy nañ amal wote yi balaa le 2 avril te loolu am na kon coow li jeex na direct news yéen kaay moom fa ñëw ci ay bizarrerie ay xiini mini yoo xam ne conseil constitutionnel fa ko def ci mbiru wote yi ni mel yor yor kaay ne Karim Wade nag fa lajj ba xalangu ci wote yi lam bëggoon yëpp ak PDS seen pexe yi ñu doon nas yëpp mujjuta sotti ka ay pexem sotti ci suqali diiwaanu diya ca Kaolack ndangaan réalisation moo xam njàng ma ma wér gi yaram tàggat yaram mbay ma taxawu soxna ya ca nekk réew mi yéen kaay moom ñoom fa ñoo xamal ne weeru koor yi léegi tey mu tàmbali te fi mu toll ni dund gi fa cher marché bi li askan wi war a lekk lépp fa yokk ba tax waa inaakuwaaya fañ koo ñaawlu libération moom fa ñoo xamal ne feetu indépendance ren défilé bi fañ koo fomm du am libération moom fa ñoo xamal ne fa xam benn soxna boo xam ne Burkina Faso la dëkk fa ñëw fii Sénégal waaye fa doon sàcc ay xale yu jigéen ñaar ngir jaay leen ay client yëf yaa nga amee ca wakaam yow tey di bésu jigéen ñu ñuy màggal jigéen ñi yow nga jël ay xale leen jaay te yow ngay jigéen ni ñoom mooy ne foo dem rek da nga fa fekk ñu bon laneen lu bon te ñaaw ma yow seetal benn waay daal fañ koo rey faxet ci kanam jabaram le républicain yéen a moo ñu ko xamal ka ko rey nag ña ko hospitalisé hôpital di ko faj point acte yéen a kaay ne xam nga lu tax ñu rey ko xeex moo doxoon a kaay ne moom waa ko reyee fa ñaaw ci sa kanam jabar ñu rey la faxet li fa garaaw li ci euh, yéen a kaay yi Choukran euh, El Hadji euh, sax nag la ñuy yem ci xibaar yi ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal El Hadji Libaas Mbay ci machine bi Mouhamadou Khalili eh, ci parti eh, digital bi waaye duñu fàtte waa rédaction ak waa production eh, ci njàppandal gi jaaree ko ci bëccëgu 8 mars boobe nag yeboog ni ki tey jile ña ngay sargal jigéen ñépp ànd ak itam di leen di njukkal ñaanal leen juma mubarak Le journal Ngoné Ndiaye